Euh, franchement je crois que waxoon naa ko si média yëpp. d'abord euh, waxoon naa si média yëpp ni leen bi may dem si tirage bi média yi ñoo ngi ma doon laaj naan ma élage contre qui vous voulez jouer xam nga tey aussi il faut que mu leer. Mhm. le Sénégal est favori. le Sénégal a la meilleure équipe d'Afrique et l'une des meilleures équipes du monde mënuñu gagner Brésil ba pare di laqatu si derrière les équipes africaines dañuy waxante dëgg rek xam nga mooy comme ni li may wax rek. qui peut organiser aujourd'hui les JOJ peut organiser la Coupe d'Afrique ndax JOJ c'est le monde entier la Coupe d'Afrique c'est qu'en Afrique mhm. donc pour pour pour pour pour, exemple la woon rek le Sénégal est favori ñun coupe bi ñun ñoo ko moom ba tey jii nii ñun ñoo koy dem tegiwaat et je crois que fu ma ko teg moo di pour deux raisons at ku nu mën jouer équipe yu mag yi ngay dégg yëpp kenn bëgguñu jouer en demi-finale ou en quart de finale koo ci laaj rek mun la Sénégal en finale le Sénégal en finale et je crois que aujourd'hui en connaissant nos joueurs en connaissant aujourd'hui euh, euh, l'entraîneur qui est en ki nga xam ne tey jii dafa gën a xiif ma ngi mel ne mosul booy waxanteen moom ma ngi mel ne mosul gagné parce que lui il connaît que li mu xam ci àdduna mooy gagné gagné gagné gagné la preuve boo laajee joueurs yi sax dañ naan après les matchs bëgg na nañu am ay deux jours trois jours de repos dinañ leen may repos xam na ni mu leen di may repos mais c'est pas euh, ni que nit ñi di moom il est focus sur une seule chose on a une génération pour gagner trois à quatre fois de plus moi je parle même pas de deux parce que celui-là je suis encore plus sûr que celui-là mën na gën yomb sax be nu gagné parce que aujourd'hui booy xool l'entraîneur veut montrer que mhm. c'était pas seulement une chance de gagner au Cameroun qu'il méritait cette coupe donc loolu bu fekkee dafa am on doit faire comme les Springboks euh, euh, euh, ni ñu def si coupe du monde coupe du monde rugby. Mhm. back to back. Mhm. ñoom ñoo fi mën ils ont les mêmes joueurs boo leen seet xale yi ñëw ñu mel na tey jii ñoom euh, Sadio tey jii at Koulibaly at euh, Mendy ñooñu boo leen di xool tey jii l'expérience qu'ils ont acquis ils ont pas besoin de très bien jouer pour gagner une compétition mais par contre la nouvelle génération qui arrive ay Iliman Ndiaye booy yooyu nga xam ne tey jii c'est des booy yoo nga xam ne qu'ils soient sur le banc ou bien si terrain bi ils sont capables la et d'être euh, et euh, décisif. Mhm. donc man fi ma koy teg moo di on a la meilleure équipe booy xool suñu parcours depuis la Coupe d'Afrique ba léegi benn match la ñu perte muy contre Algérie. booy xool euh, euh, lii tiidloo nit ñi moo di booy dem nañu jouer wi Arabie Saoudite et aujourd'hui le championnat saoudien. et compétitive. absolument un championnat aujourd'hui bu métti. Mhm. xool leen tey jii les les équipes yi nekk ci kaw lan lañ rawante ak ñi nekk ci suuf et les joueurs qui jouent là-bas c' pas ay ay mag rek jouer c' des joueurs yi nga xam ne tey jii ils ont tout à prouver c' est des joueurs c' est des internationaux brésiliens argentins croates. européens on peut partout du monde européen français ñëpp ñu nekk donc euh, loolu bu mu jaaxal sénégalais yi. bu mu jaaxal tey jii les ni eh, nga xam dañu bëgg écho Sénégal et man li ma ko fi ma teg nii Sénégal tey jii kenn mënuñu téye je discute avec tout le monde et aujourd'hui on a la meilleure équipe parce que on a une équipe homogène